rester ici parce que là, elle n'est plus en danger. Donc, elle a été prise en charge, même si elle souffrait de blessures, de multiples blessures, parce qu'elle a été poignardée à trois reprises, euh, frappée euh, à la, sur la tête, traînée aussi. Donc là, ça n'a rien à voir avec euh, quelqu'un qui voulait voler quelque chose. Donc c'est une agression, c'est une tentative d'assassinat et on a mis la police sur le coup en espérant vraiment qu'il puisse nous donner des, des résultats dans, les meilleurs délais. Alors, les faits se sont produits à, quelle heure euh, durant la nuit Après l'émission avec euh, euh, le député Farbangom, c'est ça oui, c'est bien ça. après l'émission, quand elle rentrait chez elle, elle quand elle est, descendue de, sa, voiture en se dirigeant chez elle. C'est sur ce chemin que, le gars l'a par derrière, cogné, euh, et poignardé à trois reprises avant de disparaître. elle, elle n'a plus cette sécurité qu'elle avait, on se souvient peut-être durant euh, euh certaines périodes euh, où est-ce qu'elle se disait, elle est en sécurité, pas besoin d'avoir des gardes du corps. Oui, parce qu'elle elle a toujours été euh, euh, menacée, hein, mais des, des gens qui, qui, se manifestaient, donc elle ne prenait pas ça au sérieux, même si une fois elle a eu à, porter l'affaire devant la justice, le gars s'était excusé après, disant que c'était pas pas que voilà la barbarie humaine pouvait, Donc là, c'est quelque chose de très grave et je suis ravi de voir que toute la presse a condamné, euh, même au-delà de la presse, les hommes politiques de tous bords. Hein. Oui. Voilà, donc je, je, ne sais pas trop, je ne veux accuser personne, mais je sais que ça a un rapport avec les émissions qu'elle qu fait. oui peut-être très rapidement ci wolof Mamadou Lamine Ndiaye gannaaw bu ñu la nuyoo gis nañ li xew ci suñu euh, consoeur euh, di may mën na Ndour fay euh, ñu agressé ko ci guddi gi gannaaw émission bi mu doon def jamate ko paaka d'abord yow ngi woon hôpital yaa ngi foofu sax ci hôpital à son chevet ndax mën nga ñu wax ci ban situation la tollu jamono ji jërëjëf Birahim maa ngi lay nuyu di la sant bu baax ci woote bi ni nga ko waxee ah je suis avec elle depuis l'agression Euh, elle elle était euh, nekkul woon ci ci ci jàmm en fait voilà parce que jam-jam yi métti na. Mm-hmm. Euh, jam nañ ko ñetti ñetti ñetti yoon bu pare door ko ci bopp traîné ko te elle a perdu beaucoup beaucoup beaucoup de sang mm-hmm. loolu moo ko affaiblir avec la douleur psychologique ak physique. Mais là, on a une bonne nouvelle parce que le médecin vient de nous dire qu'elle se portait très bien et que sa vie n'était plus euh, menacée. te hmm. ñun sax mën nañu ñibbi suñu kër moo gën ñuy ñuy toog parce que un hôpital militaire. Hmm. ñoo amuñu caaxaan ñu ngi demandé ñibbi mais lu ma la mën wax daal mooy que ne. Euh, l'agression était hôpital militaire bu bu Wakaam foofu la foofu la nekk nii. Hmm. waaw euh, mbirum agression bi ndax mën nga ñu ci indil yenn leeral. waaw c'est arrivé vers entre deux heures et trois heures émission avec le député Farba Ngom de de Benno Bokk Yaakaar. Hmm. donc elle a elle la 7TV comme elle a de le faire ah. ci ñibbi këram bi mu wàccee otoom avant muy dugg këram ci la mbir mi xew waa ji dafa xaar donc c'est prémédité c'est pas un vol c'est une agression c'est une tentative d'assassinat kooku bakkanam la bëggoon jël. Hmm. parce que loolu rek la la la jëlul ci moom dara lijjantiwu leneen. lu dul il a il a pris son sac mais léegi la police wala gendarmerie ñoom ñoo parce que gendarmerie Wakam moom ngeen gën a jege. waaw bon j'ai appris qu'on a mis euh, le commissaire Bara Sangaré sur le coup. Euh, wóoruguma nag voilà mais je je je, je voilà dégg naa ko ci kenn ku fi nekkoon koo xam ne aussi du waxantu. Mhm. donc mën nañ ci am yaakaar daal. Mhm. waaw euh, ñu lay euh, jaajëfal Mamadou Awa Ndiaye di leen massawu également ci boobu le mbir et tout notre soutien bien entendu merci jërëjëf Mamadou Awa Ndiaye di di di rakk ci ci man di tamit %e koo xamee ni euh, jaar na samay